sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 waj'alhu zaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa arshida waki assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñu leen di nuyu te di leen ziyaara di ndokkeel di leen balu ak côté di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa mu boole ñu jéggal ñu ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jataayi xam-xam yi yi nga xam ne ci lañuy fàttalenteendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jataay yooyu lañuy woyal ak yéen rek Euh, tolloon ak yéen itam ci téere bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqun niiraani wa mafatixul jinaan te suñu bind bi mujj ñu ngi tolloon fi nga xam ne sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ci moytandikuloo ak jaxasoo goo xam ne gu amul njariñ la ndax loolu nee na day doon xijaab ci eh, jullit bi day doon xijaab ci doomu aadama bi li muy doon xijaab bi moom mooy daf koy wiir ngir li nga xam ne mooy jaxasoo gi war na am njëriñ mu war koo def bu dee def jaxasoo gu amul njariñ euh, loole def koy gàllankoor ci jaamu yàlla ak euh, lépp loo xam ne mënoon na koo amal njëriñ waaye sëriñ bi radiyallahu anhu itam digal ñu ne na ngeen wuute ak seen bakkan yi euh, ca la nga xam ne ca lañ leen di woo ndax bakkan dafa doon loo xam ne la muy xirtal doomu aadama bi lu ëpp ëpp ci bànneex lay jëm te bu boobaa loola du doon la nga xam ne moo gën ci doomu aadama bi moo tax sëriñ bi doon wax ne wa xaalifun xuusakum fi ma dangat lahu maattihaaniha fi ma dangat kon ci bayit boobu lañu ñu taxawoon ñu konte na ba tey seliñ bi di wax ne wala takun bul nekk zastin jaalin di boroomu gaawtu fil fatxi ca ubbeega fa innahu naka loolu kat almaxiidu mooy mbërëg ma lir rijaali ñeel góor ñi sëriñ bi radiyallahu anhu nee na maa ngi lay dénk nga bañ di gaaw a ubbee maanaam bul def eh, nekk koo xam ne luñu ñu laaj nga jàpp ne yow yaa ci ëpp xam-xam ñëpp waaye bul Euh, wut sàkku tuuti xam-xam rek jàpp ne yow day fees nga géej nga gu fees dell ba tax lu ñu wax rek nga am ca xam-xam sëriñ bi radiyallahu anhu nee na maa ngi lay moytandiku loolu ndax loolu kat nee na mi ngi mel ni mbërëg ci góor maanaam ni mbërëg bone ci góor nga xam ne góor du am mbërëg noonu la loolu bone ci euh, aji euh, sàkku xam-xam waaye aji gëstu li nga xam ne mooy xam-xam kon ki nga xam ne moo xam sëriñ bi radiyallahu anhu lim koy digal mooy xam-xam bi nga xam ne moom la amee moo fexey lu mu ca dolli waaye bu mu gaaw ca ubbeega bu mu gaaw ci bu mu gaaw ci di wane ne xam na wala moo gën a xam nit ñi lu mel noonu la ñu sëriñ bi radiyallahu anhu di moytandikuloo moo tax mu ne bul gaawtu ci ubbee ndax loolu day dafa mel ni mbërëg ci góor ni nga xam ne góor kenn baaxoowuta xam ci moom mbërëg euh, noonu itam noonu lañu euh, dàqe ki nga xam ne day sàkku xam-xam wala euh, amagut am lef mu sori ci xam-xam mu bëgg ab ubbee lool te xër ca lool te yàkkamti ko lool sëriñ bi ne wal tusbiti nanga saxal alxasda ak jublu ila mawlaaka jëm ci sa boroom molta ji an ngay aji wéeru bi shukri ci sant la nga xam ne awlaaka méng na la ko moom suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu ne ne na nga jublu sa borom bi subhanahu wa taala na nga jublu sa borom bi subhanahu wa taala te nga wéeru ci moom waaye sant ko ci xewal yi nga xam ne moom la defal ndax jublu suñu borom bi subhanahu wa taala mooy fexey ba lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle nga nekk ca euh, kem sa kàttan waaye lépp lu mu tere kenn du la ca gis waaye xam ne suñu borom subhanahu wa itam daf la bind wàcce ci kaw suuf ngir nga wuutu ko fi waaye ngir nga jaamu ko ci kaw suuf loolu rek moo tax mu bind la waaye itam mu bind la ci anam goo xam ne itam euh, bi mu la ciy bind itam euh, du loo xam ne lu ko war la mu war laa bind noona waaye daf koo neex rek ci coobare mu bind la noona kon loolu ay xewal la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo la ko defal ci ni mu la bindee waaye def la bind la bind bu mat sëkk manqué woo benn cër loolu rek war nga sant suñu borom subhanahu wa waaye jublu ko ci euh, di ko ci jaamu waaye di ko sant ci mbooleem xéewal yi nga xam ne moom la la defal te xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu defal jaam bi su jaam bi toogoon di ko lim mën na koo bañ a matal wala du ko matal euh, ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha maanaam xéewal yi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala defal bu ngeen doon toog di ko lim xéewal yooyu mënu leen koo jeexal moo tax mu waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis xéewal yi nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa la defal dee ko waxtaane xéewal yi la suñu borom subhanahu wa taala defal dee ko waxtaane waaye loolu itam sore na lool ak ndam waaye sore na lool itam ak eh, li nga xam ne mooy wonewu waaye sore sore lool itam ak li nga xam ne mooy eh, eh, di bëgg nit ñi am fuñ la teg di la di di ngir ngir yëkkati la wala nger di la màggal sore na lool kon sant yàlla ci xéewal yi mu la defal lool dafa war ak jullit te sëriñ bi radiyallahu anhu bàyyiloo nañu ko xel waaye digal nañu ko te it dañoo war a war di sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax a baax mu ne waddum na nga sax ala zikri ci tudd suñu borom subhanahu wa taala maal ixlaas yi ànd ak selal fa innahu naka loolu day muy tudd suñu boroom subhanahu wa taala ju ànd akuk sellal a tariixu mooy yoon wax lil xulaasi ñeel ak mucc sëriñ bi radiyallahu anhu nga sax ci tudd suñu borom bi subhanahu wa taala na nga sax ci tudd suñu borom bi subhanahu waaye boo koy def itam na nga ca ànd ak ak sellal na nga ca ànd ak eh, akuk sellal kon tudd suñu borom bi subhanahu taala la ñu sëriñ bi digal waaye bu ñu koy def itam nañ ci ànd ak sellal maanaam nañ ko def ci ak laab waaye nañ ci sellal suñuy xool nga xam ne gistal taxul ñu koy def wala dara waaye nañ ko def te jëm yàlla rek tax tudd suñu borom subhanahu wa taala nag yaatu na lool jàng alquran a ngi ci biir ay zikar di ah, astaghfirullah mi ngi ci biir muy ay ay eh, salawaat ala a ngi ci biir ay tahlil mi ngi ci biir ay eh, xawqalaan ci biir ay basmalaan ci biir yooyu yëpp mi ngi ci biir tudd suñu borom subhanahu wa taala kon ni ñu mën a tudde suñu borom subhanahu wa taala bari na lool waaye képp koo xam ne moom nga ci jàpp ba koy def na nga ko sellal képp koo ne moom nga ci jàpp na ba koy def na nga ko sellal ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne waabudullaha muxlisina lahu diin na ngeen jaamu suñu borom subhanahu wa taala te bu ngeen koy jaamu itam na ngeen ko sellal moom suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo wàcce ci ñun diine waaye digal ñu itam ñu jaamu ko kon tudd yàlla ni ñu ko uh, mën a defee uh, ci anam yu bare bari la te suñu borom bi subhanahu wa taala tàgg na bu baax a baax ñi nga xam ne koy tudd te uh, di ko def lu bari itam wa zakirina allaha kasiran wa kon loolu mooy Euh, tegtal bi nga xam ne mën nañ cee tegtaloo ne tudd suñu borom subhanahu wa taala mën naa yëkkati euh, jaam bi nga xam ne moo ko saxoo waaye mën naa euh, may daraja jaam bi nga xam ne moo ko saxoo waaye itam mooy li nga xam ne moo mën a muccal jaam bi ci lépp loo xam ne mën na koo gàllankoor kon tudd suñu borom subhanahu wa taala lu ama am solo la te ñu mën koo defee ci anam yu baree baree baree bari sëriñ bi ne wala takun bul nekk muntabisa sariati ngay aji wàcc sariya fa nabjuha ndax wàcc sariya day eh, zariatun eh, lu bon la wala luy jottali nit ki la ila rada ko ci alkande maanaam sëriñ bi radiyallahu anhu ne na bul wàcc sariya mukk maanaam eh, bala nga jëfe li nga xam ne mooy xaqiqa muy tasawuf na nga ci jiital sariya ba tare ci jiital Euh, sariya ba pare ndax sariya mooy li nga xam ne moom mooy laltaayal tasawuf kon tasawuf bala moo mën a bala nikkee mën a sóobu ci yoonu tasawuf fawu dafa dafa dafa dafa xam li nga xam ne mooy sariya te euh, kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ñu mooy tandikuloo euh, bàyyi ginnaaw sariya wàcc sariya wala nga jàppoon ne egg nga ba tax li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle nekkatoo ca suñu borom subhanahu wa taala digal la julli digal la nga koy ngay tudd yàlla ci lu mel ni jàng yooyu euh, nga dem ba jàpp ne yow mii day euh, yow mii day egg nga ci martaba boo xam ne waratoo jàng alquran wala waratoo tudd suñu borom subhanahu wa taala loolu day ak waru la euh, ku koy def na nga xam ne seytaane moo man rek waaye sariya kenn du ko wàcc ndax moom mooy li nga xam ne mooy laltaayal xaqiqa di tasawuf moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu nañu bu leen wàcc sariya ndax wàcc sariya kat li mu mën a jural doomu adama bi mooy alkandi la ko mën a jural waaye mën naa jural doomu aadama bi euh, ëllëg yawm alxiyaam mu nekk koo xam ne euh, kuy perte lay doon kon wàcc sariya euh, sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi koy moytandikuloo wàcc sariya nag du dara lu dem ba jàpp sa bopp ne yow mi am nga martaba moo xam ne li suñu borom subhanahu wa taala digle Euh, yow waratoo cee def dara waratoo cee def dara lu mel ni mu digal la julli juróom nga jàpp ne yow egg nga ci martaba boo xam ne euh, julli juróom moom waratoo taxaw di ko def euh, yu mel noonu mooy li nga xam ne mooy jur nit ki ak waru te nit ki saa bu waroo loola ëllëg mën na koo jural pertaange kon moo tax sëriñ kon ne wala takun bul nekk di aji wàcc charia fa nabzuha ndax wàcceeg sariya kat aji jottalee la ila roda nit ki ci alkande maanaam day jottali nit ki jëmale ko ci alkande maanaam day yóbbe nit ki day yóbbe nit ki altande wax zar na nga moytandiku raakallaahu yal na la yàlla sàmm am tusaakina nga dëkkaale xeyral jalili kudut borom aji màgg gi te mooy borom subhanahu wa zahiran ci lu feeñ wa baatinan ak lu nëbb sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na nga moytoo dëkkaale ak kenn ku dut ak suñu borom subhanahu wa taala maanaam sa biir na nga ci dëkkaale ak suñu borom subhanahu wa taala waaye sa biti itam na nga ci dëkkaale ak sa borom bi subhanahu wa taala loolu mooy lan mooy jëf yu baax yi nga xam ne moom ngay fësal di ko def ba nit ñi di ko gis na doon loo xam ne loo fas ci sa xol la waaye ak sell na ko lal ci sa biiru xol su ko defee loolo boo ko defee mën nga dëkkaale ak suñu boroom subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi ne na nga moytandiku dëkkaale ak kudut sa borom subhanahu wa taala ci biir ak ci biti ci biir ak ci biti kon dëkkaale ak suñu borom subhanahu wa taala bala nga ko mën a am mooy da nga nekk ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle nga sax ci di ko def waaye boole ci ak sellal waaye Euh, li suñu borom subhanahu wa taala di moytandikuloo itam nga euh, moytandiku ko bu baax a baax a baax waaye dëkkaale ak moom ci biir itam mooy lan mooy sa xol bi set sell waaye yéene ñëpp jàmm bañ a dencal kenn ak soxor wala bañ a dencal kenn euh, ak bañeel wala yëpp jikko yi nga xam ne day nëbbu ci biir doomu aadama bi lu mel ak rëy wala di naw sa jëf wala di naw sa bopp yooyu yëpp saa bu ko jullit bi jikkoo loolu mën na koo xaj mu mën a dëkkaale ak suñu borom subhanahu wa ci biiram doonte ne mën na ko fësal ci kaw ci jaamu yàlla ne ku dëkkaale la ak suñu borom waaye ci biiram boo fa demee day fekk ne dëkkaalewul ak suñu borom ndax lan ndax jikko yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala ay yëpp di bañ ab jullit jikkoo ko boo demee ci biiram da ko fay fekk mu jikkoo jikko yu mel noonu te it da koy jëfandikoo suy jëflante ak doomu aadama yi kon loo yooyu jikko yooyu mm, dañ koy moytandiku bu baax ndax képp koo xam ne amee nga ko rek ah, day mel ni li nga xam ne mooy dëkkaale ak suñu borom subhanahu wa taala moom ci biir dana la jafe lool ndax eh, xol bu sell moo mën a dëkkaale ak suñu borom subhanahu wa taala te xol bu loolu nekk ak sell daf cay dàqu te bu ak sell dàqoo rek bu boobaa xol boobu dootul mën a dëkkaale ak suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi ne wax xaasibi nafsa na nga xisaab sa bakkan sa baaxan ci suba wa masaan ak ngoon takun kon nga nekk gadan ëllëg euh, takun kon nga nekk euh, gadan ëllëg muqaddasan di ku ñu sellal minal aza ay bàkkaar sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na xisaab sa bakkan maanaam na xisaab sa bakkan suba ak ngoon di xisaab say jëf suba ak ngoon nee na loolu de boo ko defee di nga nekk aji sell joo xam ne lépp luy bàkkaar ak lépp loo xam ne mooy lor suñu borom subhanahu wa taala mën na la koo teggil ndax nit ki su fekkee ne day xisaab bàkkanam di xisaab ay jëf yi nga xam ne moom lay jëf saa bu xëyee ak saabu bu gonte ba xam lan moo ci baax mu gën koo yokk waaye xool lan la ci def ci ba mu xëyee ba jant bi soo lan la fi def ci lu bon mu rëccu ko te moytandikoo tàbbeeti ci jëf yooyu ko képp koo xam ne yaa ngi def loolu euh, boo ëllëgee euh, day mel ni sag réglé ci kanam suñu borom subhanahu wa taala bis ba nga xam ne ci la ñuy réglé doomu aadama yi boobaa sag réglé dana yomb bu baax a baax a baax ndax lan ndax yow doon nga réglé sa bopp ci àdduna waaye doon nga bàyyi xel ne yow kat dañ lay euh, dañ lay xisaab ëllëg moo tax ñu wax ne xaasibu anfusakum xatta euh, tuxaasabu maanaam na ngeen xisaab boppu bopp bala ñu leen a xisaab xisaab sa bopp nag mooy euh, di bàyyi xel jëf yi ngay jëf di xool la baax ak la cay euh, la cay safaan su ko defee la ca baax nga fexe noo ko yokke ba mu gën a baax waaye la ca di safaan nga fexe noo ko ba dootoo ca moo tax sëriñ bi ne wax xaasibin nafsa sabaxan wa masa takun xedan minal aza muxaddasa na ngay xisaab sa bakkan ndax xisaab gi ngay xisaab sa bakkan ci suba ak ngoon loolu day soo koy def lay sellal waaye day sellal sa bakkan ba du tàbbi ci ak mooy waaye day sellal sa bakkan ba du du màmmu jëm ci li nga xam ne moo di ak mooy te ak noy yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di noyyi itam dafa doon noyyi yu ama am solo yoo xam ne ay wurus yu gànjaru la yoo xam ne Euh, doomu aadama bi waru ko koo jeexal ci ak ak ak ak neen waaye war naa fexe ba noyyi gu muy mu doon noyyi goo xam ne daf koy noyyi ci lu neex suñu borom subhanahu wa taala te loolu lañu sëriñ bi radiallahu doon digal ca masaalik di wax ne wakun uxayya daabital xawaasi fi kulli waxtin xaafizal anfaasi li anna kulla nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali يمكن أن يشتري الكنز بها لا يتناهى خيره فانت بها wax ne nag ixlaau abdin nafasan min taa yujibu xasratan lahu fi shaa amma ida axlaytaha fi lmaasiya fa zaaka xusraanun mubinun fadriya kon ne na jaam bi e, génne ak noyyi goo ne daf ko noyyi ci loo xam ne du ak topp yàlla donte ne du ak mooy loolu rek daf koy jural ëllëg yowmal pertange rawatina nag su fekkee ne daf koo noyyi gëmu noyyi daf koo noyyi ci ak moy suñu borom subhanahu wa la ne na loolu day pertange bu bir biir la bu wér a wér a wér la ëllëg yamal xiyaam kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu moytandikuloo suñuy euh, noyyi ñu koy noyyi ci anam goo xam ne bu ñu ko noyyee danañ ca mën a am tuyaabu waaye danañ ca mën a am euh, li nga xam ne mooy euh, ab yool waaye danañ ca mën a am gërëmul suñu borom bi subhanahu wa taala kon képp koo xam ne bàyyi nga xel lool danga nga xisaab say noyyi euh, ba def ko di ko génne ci lu neex suñu borom subhanahu wa taala ngir loolu mooy li nga xam ne moo lay jëriñ sëriñ bi di wax ne waddumaala tawbati na nga sax ci tuub fii kulli zaman ci jépp jamono min jumlatil isyaani ci mbooleem euh, moy yi sirran ci lu fe nëbbu waalan feeñ sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nga sax ci euh, tuub na ngeen sax na sax ci tuub ci jëpp jamono maanaam bul bàyyi tuub tuub fépp jamono joo xam ne rek yow muy xelaat nga ne am na bàkkaar boo def sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nga sax ci tuub na sax ci tuub ci bàkkaar yi nga xam ak yi nga xamut maanaam di nëbbu ak li feeñ lépp na ngay sax di ko tuub di ko jéggalu suñu borom bi subhanahu wa taala tuub nag doon loo xam ne lu ama am solo la waaye lu mën far ay bàkkaar lu mën a Euh, fek doomu aadama bi la euh, waaye am nuñ koy defee ndax ki nga xam ne mooy aji tuub ji war naa euh, intiraaf li nga xam ne mooy bàkkaar bi mu def xam ne moom bàkkaar sàngam la def waaye bu ko xamee ba pare mu réccu ko bu ko réccoo ba pare mu génn ca bàkkaar ba ba set wicc tuub ko waaye bu ko tuubee mu am dogoog bañ a delluwaat ca bàkkaar ba kon yooyu itam képp koo xam ne da ngay tuub war nga koo bàyyi xel te sàmmonte ko Euh, ndax loolu mooy li nga xam ne moo lay jariñ moo tax sëriñ bi ne kon na ngeen sax ci tuub ci jëpp jamono ci lu nëbb ak lu feeñ maanaam bàkkaar yi ngeen xam ak yi ngeen xamul yépp na ngeen sax ci di ko tuub ndax loolu mooy li nga xam ne moo leen di jariñ mu ne fa haasihil usulu yii la cosaan day oddat limeef na ko lil wusuli ñeel ak egg mu ñeel ak egg euh, wa bata te feeñ na aydan ba tey usulun mu di ay cosaan li tasawuf ñeel li nga xam ne moo di tasawuf nee na cosaan yi nga xam ne moom la leen limal de nee ay cosaan la yoo xam ne mën naa eggale nit ki ci digganteem ak suñu borom bi subhanahu taala waaye ay cosaan la yoo xam ne itam feeñ na ñeel li nga xam ne moo di tasawuf kon tasawuf léppam ak sellal la te suñu borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg jaam sellal dafa bëgg euh, jaam bi lépp loo xam ne moom lay def mu teg ko ci ak sellal waaye dafa bëgg itam daam bi su fekkee ne day def uh, ab safaan muy bàkkaar uh, mu tuub ko mu mu mu def ab bàkkaar bu defee bàkkaar yitam day bëgg mu wëlbatiku tuub ko ndax loolu mooy li nga xam ne uh, moo gën ci ñoom ndax doomu aadama moom doomu aadama rek la mën a doon waaye su juumee ba def bàkkaar na gaaw ca tuub ga te bañ koo yeexe Eh, kon loolu la sëñ bi wax usulu yii la cosaan tey oddat limeef na ko lil usuli mu ñeel ak egg ci suñu borom subhanahu wa taala wa badatte feeñ na aydan ba tey usulun di ay cosaan lit tasawufi ñeel li nga xam ne moo di tasawuf kon ñi ngi tu bu baax tey jégglu di tënk foofu di wax ni in uridu illa l islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bi bi doy sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey